ndax nam ndax nam a ñaaƴa de kuul aca Sarr TV moo ngi noonu di waaj dem nag ci Sargal ba <laughs> yéeg na ci pont bi de Sarr <laughs> boytul ga daalu nag u ceejeeri refo de u ceejeeri daage ada foofi den layu de <laughs> mais a jega jeejeer yo and dëkk Ndanane baa ngi noonu nag ñu jàkkaarloog moom dëkk ñoom Mame Mady dëkk Ndanane yi dëkk champion dëkk ñoom Ndiol Ansou dëkk ñoom Ngot Cissé Blaise Fadiouth bari nañ ay Ndanane Lamine Fall hee Diaga Sarr Pierre Jean Paul Fadiouth ñoo ci ñoom Mamadi Ndiaye xëy ba ci ñoom Laga génération bu ndaw bi waa gee yóob de te anin ngoytu men te sargal Mamadi Ndiaye ndaxte Mamadi Ndiaye nag war nañ koo mun a sargal ci biir dëkkam lu ne la liggéeyal waa Ahlou Lamb Joal a ngi noonu nag ca Niakhar Moutka ale wetano hanga fa ka yif sandal fonga te juwala jofa waaw waaw Sebagai aneh metek. Kok ni faju tohongo?